اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب الشيخ الأستاذ أبي بكر النو ما نيلندي نيو di nuyu mbollem julit yi ak kep ko xamne rek yaangi ñi tewlu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moy mooy borom jàmm yalla nañu yalla doli jàmm ci barke yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam eh, di wax ne rek ñu fas dik ak yeen ci seen ñaarelu emission bi muy halqatu thaniya ci barnaamiju rabbi zidni ilma muy barnaamij bu xam ne wàllu taarixul islaam lañ ciy jàngat ndax taarixul islaam na ma leen ko waxe woon ca xalqa bu njëkk ba képp kuy jullit war nga koo xam wala nga xam ci ndax moo lay may ëllëg nga mën a am fu xam ne di nga fa teg sa tànk ngir mën a am sukkandikuwaay bu dëgër fa tabaarakallah mu nekk lu xam ne ne taarixul islaam wax naa leen fa mu tàmbalee ak yi nga xam ne ñoo ci jaar yépp muy lu xam ne du diir bu gàtt waaye diir bu yaatu la euh, waxoon nañ leen lan mooy taarixul islaam ci njëlbeen tey nag dañoo bëgg pour ñu mën a comprendre xam lan mooy taarixul islaam dañu bëgg d'abord wax lan la fi lislaam fekkoon ban jamono la fi l'islam fek yan nit la fi l'islam fek yan jikko yan jëf la fi l'islam fek su boba ak nga ro xam nak ne l'islam yim fi fekkon ak mom lan la fi indi su boba ci ngay dor di mën def différence ndax buñu ñu rek wax la l'islam l'islam l'islam ta xamo lan la fi l'islam fekkon ak lan la fi jëlee mën nga baña xam deug deug deug lan moy dayo l'islam waye bo xamé ñëk li fi l'islam fekkon ak lim fi indi su baba di nga mëna def nak différence ci digënté ñaar yoyu nga doora xam nak lan ñëru ñu l'islam ndax mbokk yi li ma la mëna wax moy bala nga xam jamm da nga jaar ci ay tolof tolof ba pare sa bo jaar ci ay tolof tolof yu metti metti metti ba génn ci tabbi ci jamm wallahi ci ngay door di xam lan moy xéewalu jamm sa bo jaar ci ñak gu metti ak yang cey jankuwante ci ay coono ba yalla xewal la wërsegal la ba nga wat sa ginnaw ci nga doro mëna sant yalla deug deug deug ndax di nga xam lan moy banexu xewal fa tabarakallah demet kon nak tay liñu bëgg wax rek moy euh, l'islam lan la fi fekkon bala muy commencer amna jamono bu mu fi fekkon ñu ngi koy al asrul jahiliyyah asrul jahili moy jamono ñu réer ña loolu nag lan asrul jahili dafa nek fat al fatratul mumtadda qabla bi'asri sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wallati istamarrat qarnan wa nisan aw mi'atayn qabla al bi'sa asrul jahili ben fatra la bo xamne bu yag la fatra bo xamne ay téméré at jaar na fi wala ay ñaari téméré at ndax yoonte yalla aïssa bim fi joggé benen yoonte jaaraatu wo fi yoonte yalla Muhammad sallallahu alayhi Wasallam mo ñew te seen diggante ñom ñaar dafa yagg lan mo fi nekkon seen diggante moy waliyu yi ak nit ñu bax ñi nga xamne ñom yalla mo leen baxalon ñu fegu nek ca la yonent yàlla Ibrahim nekkoon waaye ñooñu nak ñu neew lañu won ginnaw gi ndax yàggaay bi xam nga weñ bu fekke dafa laal ndox nga tek ko fi bu yagge te kenn laalu ko rek day xomat meew boko raté mu tang jërë nga tek ko ñaari fan ñetti fan bu ko kenn laalul mu daal soppeku nekkum so lolu motax nak ñom tamit seen xol yi bañ ko gëjé daggi ci la dema dem ba ñoom ñëpp ñu daal di ba mu des lu ndaw سمي بالعصر الجاهلي لما شاع فيه من الجهل بسبب جهل الناس بعقيدة إبراهيم عليه السلام فسموا جاهليين وليس المقصود بالجهل الذي هو ضد العلم بل الجهل الذي ضد الحلم لتحنا نتدلن العصر الجاهلي wax naa la ko léegi mooy càngute gi nga xam ne dafa nekkoon ci ñoom waaye nag doolul ne mooy cànkuteeg ñàkk xam-xam gaa xam-xam mu ngi fi woon waaye nag lewet ga moo demoon ak màndu ga moo tax mu la nekkul woon bil jahli allazi diddul ilm walakin al jahlu allazi diddul xilm loolu moo tax nag arab yi ci jamono boobu dañoo nekk ay pàcc am na ñoo xam ne dañoo nekkoon di jaamu ay awsaan ñenn ñi di jaamu ay asnaam ay xërëm yoo xam ne ñii dañuy dem tabax ay tabax ay statue ba mu rafet ñu ne kii mooy sunu yàlla samp ko fenn di ko wër di ko jaamu di ko ñaan ñeneen ñi ñoom dañuy dem yett ab bant Aral ko rafetal ko samp ko mu taxaw ñu ne ki moy suñu yalla bu ñu amé soxla dem talal ko ay loxo diko ñaan am ñu xam ay xeer lañuy jël waaye am na ñu xam jant bi sax lañuy dem ne moy seen yalla diko jaamu buy so ak buy fenk ñen ñi wër bi jël ne moy seen yalla kon lool mo lool tax bi alayhi wasallam bi mi ñew mukarrama kerek fathu makkah yàlla yu bari la fekk ci biir kaaba gi ndax giir gu nekk ak seen yàlla tukulóor yi am nañu yàlla séeréer yi am nañu joolaa yi am nañu wolof yi am nañu manjaago yi am nañu xeet bu nekk rek am nañ seeni yàlla ñi jël jàll yooyu yëpp nag juug ko ci biir kaaba gi yenn yi ñi samp ko ci seen ruqi kër ne mooy seen yàlla bu ñu amee soxla dem di ko sukkal di ko sujjóotal di ko raamal di ko ñaan bañ leen laaj ñu ne wa ma nacbuduhum illa li yuqarribuuna ila llahi zulfa kon ñoom dëgg-dëgg réeré ñoon ne nag ah yàlla am na waaye dañ ne dañ leen di jaamoo ngir nañ ñi jegeel yàlla ju mag ji loolu la alquran wax léegi nag amoon na benn pàcc boo xam ne gis nga yàlla yooyu ñu doon jaamu sax alquran tudd na am na yum ci tudd ndax daf ci am yu gënoon siiw ku demee ne hubal laata Uzza ak manaata yàlla tudd na laata Uzza manaata saalisatal uxra yàlla tudd na yooyu ndax dañ fa nekkoon yàlla yoo xam ne nii moom ñëpp a ko xamoon ndax ni mu ni mu ni mu màggee ci ñoom bokk ko jaamuwul rek ñu yow da ngaa génn xeet léegi nag ah am na nag ci ñoom pàcc boo xam ne ñoom lan lañ doon def mooy. dañoo nekkoon ay xunafa mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ca la yonent yàlla Ibrahima nekkoon di jaamu ca jaamu googa amoon na waaye bayu bariwuloon am na ci ñoom ñu xam ne euh, yàllaay mburu lañ amoon comme ndaw ku ndaay ñoom yàllaay mburu lañ amoon Seydina Omar radiyallahu taala moom ci la bokkoon léegi nag nee na li ko daan gën def ay ree mooy moom daal bu tegaan yàllaam ji xiif yàllaay bong-bongam ji bu xiifee xamul nu muy def dina ñëw wër yàlla ji xool ko xoolaat ko ndeysaan bu ko weñ dalee mu dàq ko waaye nee na day toog toog mu yàgg rek ne benn loxo ba daldi koy lekk bu suurul mu jëlaat ba ca des naka noonu noonu la koy toppee ba yàlla ja jeex kon yalla joju de doyna war yalla joju est ce meuna mën faj soxla lolo tax yoonent yalla ibrahim alayhi salam nak mom ci la don xeexee xex bu metti ba ba tax la ko dalon dal ko ndax bima len di war len yalla yi xamuñu dara mënuñu dara dafa ñew fekke len mu gor yalla yeb jël semign bi wekk ko ci yalla ju mag biñu ñewé ne ku def li man faala hadha bi alihatina kan mo def li sunu yalla kan mo ray suñu yalla kan mo blessé suñu yalla Ibrahima ne leen yàlla ju mag ji moo mer gor yàlla yu ndaw yi laaj leen ko ñu ne waaw kii xam ne fi mu taxaw mënu fay jóg buñ ko woowee du ñu wuyu mënul wax nga naan nañ ko laaj mu ne waaw yéen yee ngeen seen bopp nan ngeen di jëlee ko xam ne mënul wax mënul jëriñ dara mënul lor dara ngeen teg ko fi ne mooy seen yàlla moo leen di jëriñ moo leen di lor seetaat leen seen xel bu baax kon loolu yàgg na fi fa tabarakallah mbokk yi al asrul jaahili yi noonu la tudde woon ba tey ci asrul jaahiliya ñoom nan lañ doon dundee ndax ñi ngi doon dund façon dundin boo xam ne dund bu kéemaane la woon nee naa la lu jamono lëndëm lëndëm rek dina am ay benn benn yoo xam ne yàlla moom da leen di musal ndax loolu mosul tàggoo ak jamono amoon na tamit ay jikko yu xam ne macha allah jikko yu rafet yu fi nekkoon donte la bariwul kaana al arab fi hada al asr yatamattacuuna bi sifati alshajaaca walkaram wa igaasati almalhuuf wa nasrati alxaq wa silati rahim amoon nañu xam ne nii ndeysaan ci jamono boobu yàlla wërsëgaloon na leen ñoom lan lañ doon dame mooy ak njàmbaar ak teraanga def teraanga ay teraanga ak fekk ku loru kuy kuy loru ñu xettali ko ak ku ñuy noot ñu dimbale ko ak jokk mbokk amoon na ci loolu li koy firnde li koy dëggal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla daf may yónni pour bi ma ñëwee yenn benn benn jikko yu rafet yooyu ma fekkoon fi yi ma yeggali ko mottali ko ba ngeen am makaarimul axlaaq yëpp fa tabaarakallah euh, doy na benn tegtal rekk ci ñi nga xam ne ni jamono yooyu amoon nañ jikko yu sell yu rafet yooyu benn buur buñ doon wax xaatim at-Taa'i xaatim at-Taa'i shaa'ir la woon maanaam woykat la woon waaye tamit buur la woon buur la woon woykat la woon ndax famille moo ci nekkoon buur moom mu ngi gaañu 46 ans xabla hijra avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay moom mu ngi amoon mu ngi gaañu ci 600. cinq miladiya ci gaañu bi yonent yàlla Aysa demee ba mu am six cent cinq ans juróom-benni juróom ak juróomi at ci la faatu waaye nekkoon na ku xam ne ku siiwoon ci ak mbaax la ku siiwoon ci ak tabe la ni mu siiwoon ci ay wéy waaye tamit ku siiwoon ci def lu baax la ku siiwoon ci def ay teraanga la ndax moom nee nañu da daan dem ba ci digg àll ba fi nga yoon bi nga xamne fi la commerçant yi di jaar ñi nga xamne dañuy traverser désert bi dama dem ba fu xamne ni ku fa di da fekk sa xif dabla mu ray ay gelemam defar restaurant tog togg ay toggam defar ay berndem tek fa taal aw safaram su ko defee yow mi dox ci désert bi sa bo dem ba seen safara si rek nga ne de amna ñu fa nekk ndax boobu loolu la ñuy xàmmee boo séenee safara si rek nga dox dem boo yegsee fekk mu ngi teg ndawal yi ñuy yàbb wàjj yi boisson yaa ngi sàngara yaa ngi dara manqué wul nga lekk ba suur bu la neexee sax fanaan fa ba bët set nga continuer waat dox moom ku tabele woon te boobu moom lislaam ñëwagul ci fatra boobu la ñëwoon ku yonent bi bëggoon la sallallahu alayhi wa sallam ku yonent bi daan tiitaroo la ndax dem na benn jamono boo xam ne ci xasootu badrin biñu jappé jar-jar yi jappalé nañ ci doomu hatim mom ma lay wax bi nga xamé né gaay ñing ko groupé ci ñinga xamné ñom lañu japp ci jamm ya mëna dem leen ci Muhammad ngeen wax ko né ko amna jigen ju la soxla mu ñew mu ne ko yondu bi mu ne ko Muhammad man doomu hadib at taila yundu yondu bi salaa wasallam ne yewi len ko ki bayam dafa nekkon ku xam ku bëggon makarimul akhlaq dafa amon jikko yu rafet nan teral nit ñi da terdal, daan teddal kenn duko neewal doole kenn duko ko sagam ko bayiko mu dem fa tabarakallah lool moy li wolof di wax naan la rek gannaaw lay fété gis nga jikko yu bax yi bayam melo won ak melokaan yu sel yi ak nim daan dimbalé jaamu yalla yi loolu mo roy loolu la yontu bi sallallahu alayhi wasallam naw ba tax bagn ko waxee ne ko ki doomu xaadi wa ta'ila rek mu ko ko libéré leen ko dum gëna gaaw immédiatement sans condition kon fa tabarakallahu ahsanul khaliqin amon na ay jikko yu bax yu xam ne na ci jamono yoy mom xaatim nak liñuy wax wax gatcha ngalla mo mënul ñak mel non ndax mom yaayam dafa nekkon jigen ju bax jigen joo xam mu ngi tuddoon hadbatu bint bintu eh, afif non la tudon waye dafa baaxoon tabe labir. mën a joxe ñam mën a joxe alal ba mujj gi ay mbokkam ay frèram dañoo mujj nangoo alalam yëpp garde ko moom ñu jël ko tëj ko fenn ndax nee nañ kii day yàq alalam ndax lu mu am dara du taxu ci ay loxoom day joxe rek loolu moo tax nag yàlla jox ko moom tamit doom ju xam ne ba mu ñëwee na yaay ja meloon dafa ñëw jël wàllu yaay ji jëlaale wàllam fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin mbokk yi kon ñi ngi ci asrul jaahiliya ba léegi ñu wax ne wa indama abqa alayha lakin bi janibin axar jikko yu rafet yooyu nag bi nga xamee ne lislaam ñëw na nag dafa ñëw continuer jikko yu baax yooyu lépp lu baaxoon mu yokk ko waaye lépp lu bonoon tamit mu fanq ko ba xam ne nii kenn dootul jikko jikko yu mel noonu ba tey ni ñu jikko woon ñoom arab yi ci jamono yooyu mooy dañu jikko woon jikko yu xam ne amoon nañ jikko yu xam ne tamit jikko yu ñaaw la comme affaire parparloo affaire giir affaire pukkari wante maa gën ki kee ma maa gën a baax kale maa gën a bokk ci yax bu rëy yooyu seeni ay jikko la woon maa ëpp ay jaam maa dàq naan sàngara maa dàq karta yooyu nekkoon na yoo xam ne tamit dañ ko doon ndamoo ñoom arab yi ca jamonoy jaahiliya fa tabaarakallah nekkoon nañ tamit ay nit yu xam ne amuñ won barab bu ñuy sax dañ naan laxas di dem rek manam ni nga xamé ne nam baaleen ma ko suñu bokk nduranaa bi ni nga xamé ne ñom ñax ma lañuy top rek ak ndox ma fu mu nekk rek ñu dàq seeni i gëlëm seeni nak seeni jëm fofa nam non lañ doon dundé kon euh, loolu nekkon na lu xam seen jikko la woon bi lislaam ñëwee nag nee la laa yasxar min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa min nisaa asa an yakunna xayran minhunna ne gis ngeen puugar want bi ngeen di def baleen ko ndax aw nit a ngi toog di ree seeni morom te fekk ka ngay ree moo la gën ay nit a ngi toog wala aw jigéen di saboote seen morom te fekk a ka ñi saboote moo leen gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen laa fadala li arabiyin ala ajamin illa bi taqwa ngëneel daal nekkul ci maa bokk ci famille bi wala famille bële waaye ngëneel mu ngi ci ragal yàlla kon lislaam ba mu ñëwee loolu la leen tontu foofu ñoom ahlul jahiliya ñi nga xam ne ñoo jukko woon jukko boobu fa tabaarakallah ñoom ba tey seen jamono nekkoon na jamono ba xam ne ay xeexante rekk xeex ger yu xam ne kenn xamul nu mu toll waaye ger yooyu nag am na ci ger bu ñuy wax daaxis wala xabra guerre la boo xam ne nii mat na téeméeri at yoo xam ne ñu ngi koy xeex te gis nga li ci gën a doy waar mooy gis nga geer boobu ñi ko doon def famille bi ko doon def famille la boo xam ne ñaari doomu baay la ñoo bokk benn baay xeex boobu dina nekk xeesu waato xeexu waaso ba mat lu ëpp téeméeri at yoo xam ne nii ñu ngi xeex kon loolu lislaam moo ko fi jëlee ñëw ne leen yéen ñëpp ay mbokk ngeen al muslim axul muslim fa tabarakallah mu nekkoon xeex yu xam ne yu metti la te dara du ko lal lu ñàkk fayda yu ci bari mbiram jigéen koy lal wala mbiram alal wala ay jur amoon na yeneen xare tamit yu xam ne yu bari la lu deme ne xorobul basuus ak xarbul fujjaar ak ay yeneen xeex yu xam ne ni diire lañu diire bu yàgg yàgg yàgg ay téeméeri at ak nangam ñu di ko xeex xeex yu métte métti ci seen diggante kooku asrul jahiliya ci loolu moo fi nekkoon moom daal ci gàttal dañu naan la li fi nekkoon mooy jikko yu suufe ndamuwante rayante ku ëpp doole sa morom def ko ko faale wu ñu jigéen ñoom daal naan sàngara dox ak ay caaxaan loolu moom mooy li nga xam ne moo gënoon a siiw ci jamono boobu ñi seet nag lislaam bu ñëwee fan lay jaar ak ñooñu ba tey nga gis ne amoon na benn waay boo xam ne ñu ngi koy wax Zuhayru ibnu Janaax al-Kalbi yi moom nee nañu dundoon na ñaari téeméeri at ak juróom fukk cent cinquante ans ñenn ñi ne quatre cent cinquante ans la doon ñeenti téeméeri at ak juróom fukk waaye gis nga ay atam yooyu def na ci xare na ci ñaari téeméeri xare xare yooyu mooy lan xare lay doon yoo xam ne dangay toog ba guddi rek nga dem ci benn dëkk dal seen kaw duma leen jël seeni gàtt jël seen alal nangu ko dem sa yoon def na ci lu mat ñaari téeméeri xare yoo xam ne ni def na ko moom waa jooju nga xam ne mooy Zuhayr lépp ci ay tooñ loolu yëpp mu ngi amoon ci jamono jaahiliya yi jamono jaahiliya jigéen moom nan la meloon ci jamono boobu jigéen amuloon benn droit jigéen nekkoon na ko xam ne ku ñu ñàkkaloon fayda la jigéen nekkoon na ko xam ne teguñ ko woon fenn jigéen nekkoon na ko xam ne matériel lañ ko defoon bu xam ne moom du amul droit don moom kay dañ koy donn ca bagage lañ ko boole woon su sa papa gaañoo yow ca bagage ngay bokk ndem am nga chance dund sax la ñuy wax ndax li tax man ndem ndax am nga chance dund mooy ku ci amaan doom ndax comme ñoom ci guerre lañ daan dund te gis nañ ne jigéen amul katan boobu wala yenn déplacement yi ñu ne kon doom ji jigéen gàcce la ku am doom ji jigéen da ngay am gàcce ndax doo mën a xeex te ku ñëw dal sa ko doo am ku defendre moo taxoon nag ku ci am doom rek muy jigéen rek nga daal di dem suul ko ne kii daf may gàcceel loolu alquran moo ñu ko nettalil wa idal mawudatu suilat bi ay zambin qutilat yàlla nee na yowmal qiyaam ñoom ñi nga xam ne ñépp ñu daan def loolu am doom dem gas bu mu xóot nga sànni usul ko ta deewul yàlla neena bu yowmal qiyaamee ñom ñun ñep dina layu ak ñom dina samp tribunal bo xamne spécialement pour ñooñu la wa idal mawudatu suilat bi ay zanbin qutilat kon loolu yeb dafa amoon ci jamono yoyu wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bihi ay yumsikuhu ala hunin am yaddusuhu fi turaab allahu akbar yàlla nee na ku ci amaan doom ku sa jabar daan matu yaa ngi taxaw di xaar di xool lan lay jur bu doom yi ne put nga yëkkati tànk ba xool bu dee jigéen rekk nga jàpp ca tànk ba dem sànni ji dem suuli yàlla nee na ku ci xam ne ñëw nañ ne la sa soxna am na doom nga ne lu mu am ñu ne la jigéen rek nga gis seen kanam nga di sëlsëli ndax xibaar biñ la jox ni mu lay mettee fa tabaarakallah kon lislaam moo ñëw sagal jigéen teral jigéen teg ko ci makkaana boo xam ne nii mosu faa nekk am na ci ko xam ne nee na mom doomam bu jigen bam koy sul and na ak xale bi porté ko ci fasam wala mom ñi dem ba ci àll ba bi ñi dem ba ci digg àll ba neena ma ngi yor sama pikk ak sama pel di gas di waq pe ndax suuf ci di di dal sama kaw di ma dom jadi ji di ma faxas naan ma papa yaangi yaangi yaangi tilim di papa yaangi tilim ma ma waxuma ko dara Bama gasa gasee gasa gasa ba xam ne ci pax mi ma daal di koy jël tëmbal ko ci bir pax mu yoxo papa la papa lal la na ma jël sama pel di sak di ci soti ba maasale ko dem sama yoon kon lolu amon na ci jamono jahiliya yi ndax ñom liñu jappon rek moy jigen mom du dara te jigen day ta waral am gatché fa tabarakallah wuute na nag ak fa len yoonu bi tek sallallahu alayhi wasallam ñu xol islam mom bam ñewé fan la tek jigen ak lan la jox jigen kon pour nga mën a xam dëgg dëgg dëgg lislaam fan la taxawee ci jikko yi yi nga xam ne ñoom la fi fekkoon fan la taxawee ci diggante famille yi ñi nga xam ne dañ doon xeexante seen diggante fan la fekk ñi nga xam ne dañ doon suufeel jigéen ak moom ban rôle la ci doxal incha allahu taala bu ngeen ñu toppee dinañ yegg ak yéen foofu ñu xam kon dëgg dëgg dëgg dëgg islaam moom mooy lan ba tey ci seeni activité bokkoon na ci li nga xamne mom lañu lañ gënoon bëgg moy ay tukki di déplacer di dem di ñëw ak commerce bi ak di jongante ci ay wëy ay kat lañu won wo xamne ni ma sha allah dañ daan wëy wëy yu rafet wëy yu xamne yu taru la yu xamne ni dañ dan dajé ci na ci marché Ocass ben marché la bo xamne ni dañ fa dan dajé mën nañ ko waxtu dé marché luma marché bu mag la won bo xamne ni arab yëpp dañ dan dajé fofu ko wëy kat di ñëw commencé nak yi jongante Euh, di seet ñan ñoo ci dàq wéy am na ñu xam ne liñ daan wéy daanuñu ko bind sax dañuy taxaw rek di wax di wax rek di wax rek bu ñu waxee kee tamit taxaw wax ñi seet ñan ñoo ci gën a rafet la ay wax fa tabaarakallaa mu nekkoon lu am solo wéykat yooyu bari woon nañu waaye dafa am ñu xam ne ñoom ñoo ci gën a siiw ku demee ni imraul xays kooku siiw ci wéykat yi la borom xifaa nabiki min dikra habibin wa manzilin بسخط اللواء بين دخول فحومل فتوضح فمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر أرآمها في عرصاتها وقعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البير يوم تحمل لدى سمريات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا فتجملي إن صفائي عبرة إن شفحتها وهل عند رسم دارس من معول كدأب أم حوارس قبلها وجارتها أم رباب بمأشل بمجيخ كوكو نيكو نكيان نكو ko تيني تيغنو ci ñi ci gënoon a siiw di gërëm sunu oustaz Cheikh Ahmed Tidiane jaw mi nga xamne ne ñu ko doon jangal ndeysaan yàlla na yàlla yokk fanam yok ko wër kon imraul xays ci ñi ci gënoon a siiw ci la bok waye ay wëyëm yëpp lan la won ay ndamu ak mbiram jigen ak xex ak wane ak njàmbaar yooyu moom moo doon seeni woy ci lañ daan ndamu kenn ku nekk di wane boppam di fëgg dënnam di wane ne maa toll nii maa toll naa amoon na ku ñuy wax tarfatu ibnul abdi bokkoon na ci ñi ci a siiw zuhayru ibnu abi salma ak xaaris ak omar ibnu kalsum bokkoon na ci ak antaratu ibnu shadaat moom tamit bokkoon na ci ak labid ibnu rabia ak nabixa ak zeybani ñii bokkoon nañ ci ñi nga xam ne nii ñoom tamit wax dëgg yàlla ci wéykat yi ci gënoon a siiw la bokk fa tabaarakallah am na ci ko xam ne moo doon wax wa laqad abitu ala tawa fa azilluhu xata anaala bihi karimal makal nee na man ma fanaanoo xiif yendoo xiif ànd ak sama dignité moo ma gënal may lekk ñam bu xam ne yéene wuñ ma ko wala nañ ma koy joxe dañ ma koy joxe ci joxin bu xam ne ni joxinu jéppite la nee na ma dee ak xiif sax moo ma gënal may lekk ñam woowu mu nekkoon wéy bu xam ne nii fa tabaarakallaa nee nañu nee nañu yonent bi waxoon na ne salaa salaam kii de bëggoon naa koo gis ndax wax ji mu wax fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ñoom kon bokkoon na ci seen jamono euh, wéy dañ ko daan tiitaroo bu baax a baax a baax moom lañ daan jongante moo tax làkku arab nekkoon làkk boo xam ne bu gënoon a am solo ci jamono yooyu ndax niñ ko daan woyee di ko bind moo taxoon làkku arab moo gënoon dund moo gënoon a am sens ci jamono boobu. moo tax ñi daan daje nag ci marché boobu nga xam ne mooy marché Ocass ndeysaan boo demee Touba ca dëkku Cheikh Ahmadou Bamba ba radiyallahu taala anhu tuddee nañ ko am marché ndax dafa nekkoon marché bu amoon solo ci jamono arab yi marché bu xam ne loo soxlawaan rek tànk demuloo fa rek daanaka doo ko mën a am. kon loolu moo tax ñu tuddee ko marché boobu ndeysaan mu doon marché bu am solo kon daal mbokk yi bu ñu la tënkalee li nga xam ne moom lañ la wax di nga xam lislaam fan la fekkoon jamono ak fan la indi jamono suñu toppee incha allahu taala ja xalqa yi di ñëw dinañ leen wax ba ngeen xam ne kon lislaam dëgg dëgg dëgg mooy diine ji nga xam ne diine jàmm la mooy diine ji nga xam ne seetal doomu aadama moo ko tax a jóg mooy diine ji nga xam ne teg teg doomu aadama ci kaw yoon moo ko tax a jóg ba mu mën a jàkkaarloo ak boroomam kon daal ki nga xam ne moom ngeen àndaloon ci waxtaan bi mooy seen mbokk Ahmad Top ci groupe whatsapp bi nga xam ne mooy ahbaabu cheikh oustaz Babacar Ndaw di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla dooli jàmm defal ñu kooru jàmm ak salaam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu